maa lay fay di la char di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur sant suma famille bu baax a baax a baax a baax di nuyu suma sëriñ sëriñ Cheikh bintu Fall di nuyu suma waa dëkk aussi di nuyu waa Géejawaay yëpp di nuyu tamit aussi tamit ñi ma fekk si fii waa Massa bu bees suma frère yi ma fekk si ay njaga gars yi xam nga Modou seen Matar xam nga ak grand moom place bi xam nga grand ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di nuyu waa waa waa bees bi yëpp may nuyu waa Géejawaay bu baax a baax di nuyu waa Diourbel aussi nga xamante ni aw ma lu ko sut di nuyu suma famille yëpp yëpp di nuyu suma mbokk géwél yi aussi di leen wax ne welcome dal leen ak jàmm ñu wéel ci waxtaan wi ci kanam. Euh, dafa mel ni bi nga jógee sa combat yaa ak Boussine mel ni corona bi laal non corona gis nga ko mu dalul man corona naa woon sax gars yi dañ ma dañ ma fi dañ ma fi dañ ma kii loon rek dañ ma xaar loon <laughs> rek. non fi mu toll nii mbéy ndaw yi ma gis yëpp ñëpp bàyyi nañ ñi jeexal nañu ñi ñi nga xam te ne rës nañ koo jox mën a talum entraîné mais état de forme bi mu la gisee lan la. non dañuy maintien rek bañ xam nga li ñu yor dem xam nga moo tax may ànd ak suma frère yi di dem Sall suma rak yi ay booy bébé guy gi xam nga alkaar euh, alkaar mooy ji càndum de xam nga maa ñoom tout le temps ñi ngi Sall di entraîné ngi géej aussi xam nga di joob xam nga pour bañ a perte suñu forme parce que xamuñu kañ lañuy jékki-jékki ñu ne ma affaire bi tijji na boobaa xam na da nekk fii di waye di te li li lamb gars yi di wax naan lamb du du biir day xëy wasin kon amuñu jot boobu di di xaar xaar bu métti bi bon kon dañuy xam nga di suñu bopp quoi pour pour bañ a yaram bi bañ a bàyyeeku carrément. gannaaw ñu ci bëri xam nañu Eumeu Sène junior mais euh, ñu ci bëri dañ naan Eumeu Sène dafa xaw a tardé ndax Eumeu Sène bi mu déclenché boobaa ak léegi ñu dégg Eumeu Sène junior di ko gis mais gisuñ ko mu yegg benn niveau bi lan la waaw lépp xam nga des fois day aju ci wërsëg ak ak ndogalu yàlla parce que man tey jii sama carrière su ma nee xam nga man ak Ama bale la waroon doon wala man ak Boy Niang parce que ñoo bëree ndoo woon xam nga mais suñu borom dogal na liñ am mérité nañ ko li ma am mérité naa ko parce que yàlla suñu borom mooy dogal ñu yàlla lu tax yàlla suñu borom yeggale leen fi bàyyi ma fi defalu ma yàlla suñu borom xañ ma yóbbu leen lépp ci ndogalu yàlla te dañ koy sante yàlla. xam nga di ñaan yàlla suñu borom ñoom li ñu am ñu am de plus wala ñu am lu ko ëpp ci barki Serigne Fall parce que xam nga ñun ay ay Baye Fall lañ te ay jaam yi nangu dogal lañ lépp lu mun ti ñëw rek xam nga dañuy gëm yàlla te xam ni ndogal la ndogal moo ñu téye fii ak fracture damu damu moo moo xaw a taral suma carrière mais lépp sant yàlla la rek waaw. mais lan la adversaire yi nga war a bëreel ñoom nga amagul wala yaadul jël ñi nga xam te ñoom nga war a bëreel wala maanaam dama comprendre man parce que boo nee man ak ñoom Boy Niang su ma nee man ak ñoom Ama Baldé te fi mu toll nii euh, ñi topp ci ñoom sax xawaguloo yegg foofu parce que su ma juumul kal mu du nga jël lan la. waaw ñi topp ci ñoom igir Boy Niang boo xoolee awma ku ma fay bëreel bu Boy Niang Boy Niang moo ma fa xaw a raw kalmanduur bi ma koy jël maa ko raw et puis foofu lan moo dinañ ci ñëw parce que yaa ko ba pare nga jël ko dinañ ci ñëw mais lan mooy problème mu lan mooy problème mu Eumeu Sène junior. loolu laay wax mais problème Eumeu Sène junior mooy que ku amul li la gënal da ngay jàpp ci li fi sës bëggoon naa man di bëre di bëre ñoo xamante ni man sama làmb mosuma def nii ci kawa ah. def nii ci kaw jël parce que du ko am. lam mooy su ma métier tamit du ma fa nekk di xaar demali suba su ma dee def nii aw ma ñi ma war a bëreel nanguñ ma jël tëkku naa fi Yékini junior tëkku naa fi ku ne nag ku ne moo ku ne ku ne naa ko xam nga affaire yi ñëwul quoi mais du ma toog di xaar ko nga xamante ni bëggul bëri ak man làmb mooy suma métier ñi bëgg bëri ak man damay bëri ak ñoom. mais lan la da amul yu mbëri am parce que mbëri ñu ci bëri dañuy am promoteur ñi am staff bu baax parce que da benn combat ñaari combat am koo xamante ni moo ko raw ci làmb fuuf. combat bi passé ki ko doon tëgg man ak moom romb na affaire promoteur Khadim Samb. kon bu fekkoon affaire promoteur la man dama naan affaire wërsëg la ak affaire ndogalu yàlla bu fekkoon affaire promoteur la Khadim Samb mën na ma jox. kon buy li ne ci xolam mooy ko mu jox ma Modou Lo ma bëre moom wala keneen ak keneen xam nga mais tey jii Bour Sine la ma yàlla boole loon bëri nañ ma moom daan naa ko xalma nduur laa ma te incha allah bu soobee yàlla noonu lay demee waat bu soobee dama gis dama gis bu ñu weesoo loolu euh, nekkoon nga fan euh, kii taasu nga mhm. nekkoon nga bul faale waaw après nga léegi yaa ngi kii moo fadam tournoi boobu pour lan la woon avant tout Mor la woon Mor laa njëkkee waaw après su may grand frère góor gi ñoo ma yóbbu woon bul faale parce ay xarit lañu woon ak Tyson Eumeu Sène bon man nit laa bu nga xamante nii damaa nangu ku ma yëlif ma ànd ñoom ñu yóbbu ma bul faale ma dem nekk fa xam nga ba ma seen di quitté bul faale ma ànd ak moom aussi tamit waaw lépp tamit nekkoon ci lu nga xamante ni. lan moo taxoon nga quitté bul moo taxoon quitté bul faale dem tâche nga. parce que monsieur moom fa yóbboon moom moo taxoon ma ñëw bul faale bon buy génn mënu ma fa toog. ma àndaat ak moom léegi bi ma demee nag ba nekk suma yëfu bopp ba nekk su ma magu bopp en fait maa woon mi xam ni produit yu Morfodam la man produit yu Morfodam la ma delluwaat ci keppaar Morfodam ma ñëwaatee tamit muy nuyu waa écrit bi de passage di nuyu président bi xam nga di ñaanal Papa Morfodam. taxoon nga jóge woon foofu danga nga fa gisul woon sa bopp wala. lan moo tax ma. nga nga da fa gisul woon sa bopp wala. non même pas déggoo ma ne la. ñoom moo juumul bu ñuy doog a dem ah euh, taay si nga bay woon na coow mbër yaa ngi génn ku ci nekk di bëgg a wane sa bopp. taay nga bi ñuy soog a dem man maa fa nekkoon. comme espoir Tyson 2 man ak Tyson 2 ñoo fa nekkoon ak Jordan safur la après euh, loolu monsieur moo fa nekkaatoon amatutoon amul raag bu metti ba fa nekk ci ay mbër li gën a jafe mooy am naa ko mooy génn mooy am tur. fu ma génn ñu ne Eumeu Sène junior mi ngi ci ci tâche mais nekkul li nga nduwoo ak moo tax boo génne ñun Eumeu Sène junior ngi ne tamit di dem. non Eumeu Sène nduroowuñ sax. Ah, <laughs> non <laughs> ngay génn léegi ñu naan est-ce que du Eumeu Sène nekk <laughs> non non maa ngi moom maa ngi ko nuyu de naa ko jàmm bon mais du question kay affaire de nduroo mënoon naa ñu bari nañu niroog Eumeu Sène te te te te làmb jox leen seen. man de gisuma ko ci yow rek laa ko gis. non boo gisoon Eumeu Sène bu yëmbal da ngay bàyyi àdduna. non da ngay bàyyi àdduna billaay wallaay. kooku moog Eumeu seen benn lañ teg teg billaay wallaay maa ngi koy nuyu moom tamit mais man damay ñëw ci làmb amaa wane sama bopp ci làmb damay xeex damay bëree xam nga xëñ nag xaalis bi ñëwagul mais li mbëri di am ci làmb am nañ ko mooy victoire ak défaite waaw ak supporter. ak ñu la bëgg am nañ ko mais suñu borom moo dogalagul xaalis bi ñëwagul oto yi ñëwagul kër gi ñëwagul lépp ndogalu yàlla la. léegi nga jógee foofu jël sa combat yaag Bou Sine mu nekkoon combat xamante ni combat bu métti woon na yàgg Bou Sine ngay ñëw ba ci bés bi euh, grand combat bi yàqu sas bi gënoon diis. parce que dañ naan ba journée bi yàqu na gaa yëpp loolu la ñu waxoon journée bi yàqu na seen ba sax fàtte woon mais ngeen ñëw euh, wane loo xamante ni nii grand combat bi amul sax nit ñi fàtte na grand combat ndax seen combat bu metti yàgg lan la woon jour boobu. non non ñun ñoo nekkoon grand combat bi. ñoo nekkoon bi. ñoo nekkoon grand combat bi. Alioune ak ñaq jor ñu ñu doon bëre beneen grand combat bi Alioune Seye 2 suma grand frère maa ko nuyu de passage. mais ñun ñoo nekkoon grand combat bi mais pas ñoom Alioune Seye ñoo doon waaj a bu gisoo ñoo dugg ci géew bi di waaj a ñu gaañ Alioune Seye 2. bi bokk. ok voilà ñun ñoo waroon bëre grand combat bi mais après bi bee amul. man de nature samay combat noonu lay am. mojum kaañ lay doon da ngay bojj di toxo ñu mbaa ngay bojj say baqara yi génn mooy combat moom tëf tëf tëf tëf dóor xeex bëre yàlla nag moo yor ndam. dama doon fi ñëw indi leen problème gars yi leen wax dama jox xaalis par force loolu laa ko jógee. nga xam ah Modou Sène mooy loolu xaaral Ndiaye moom nekkul fi ah Sopé. waaw lépp jaam waaw mais man la fa demee. waaw mais tombé a ay gaaf mais kii moom xam nga. xam moom dafa yàgg quoi depuis mbapat depuis mbapat depuis mbapat mais xam nga moom moom dóor waar rek la xam quoi ba waaw waaw amal jàmm bu baax yow waaw mais sama gars baaxee boo ñëwee de mais du leen de am jàmm waaw ñu santaat rek waaw ñu samay gars yi baax nañu amiin incha allah amiin amiin incha da koy daan sax. incha allah amiin da koy daan gëm nañu da koy daan. boo ci kaw ci kanam rek. ñu koy ñaanal yàlla lu wane dara nañu koy ñaanal. amiin amiin. mais kontaan naa sax. waaw mais rafet na waaw am na jàmm rek. incha allah incha allah. mais saa ci kër gi la de. waaw mais jërë nga tey kay kay xam nga ni ñu nag moom mooy loolu. waaw ñu jàpp. waaw. sama doomu bàjjen la moom bokk la sama lépp la maa ngi war a jox mais kay ma jox. ah déedéet déedéet déedéet déedéet. loolu du yàq dara tey sama lépp la ba démb démb rek laa koy wax. maanaam saa yi laa fekk fa lay mu jaay xam mu jox ma xaalis bu bari. te loolu bu ko neexoon bañ ko cee fekk. waaw comme bu ma fekk mu jox ma xaalis barke yoon bi tey mu mel ne jàmm ak xaalis laa koy neexal. loolu moom mu jëriñ jàpp jàpp barke yoon nag su ma soog ma nekk bu ànd Ah. dafa naa ah. nga xamante mooy Bou Sine jóge fa dal ci Calme euh, du Eumeu Eumeu Sène dafa amul staff bu baax wala lan la parce que maa ngi dégg léegi say bi wax nga ne maa ko raw mais teewul dama koo jëlaat. waaw xam nga wax ci ci biir tii ci suñu biir waxtaan wax naa la ko nee naa la su ma amul li ma gënal damay jël li fi sës parce que aw ma jotu xaar ñi nga xam ne gis mbër yoo xamante ni bu ñu ñi ñu bëgg bu ñu leen amul dañuy toog xaar. waaw mais loolu laa la wax man làmb mooy suma métier ci làmb laay tere pour teral ma njaboot léegi ma war a xaar ku nga xamante ni buggul bëri ak man jëmale suba loolu ban njëriñ la ma amal en léegi j'ai préféré ma jël ko nga xamante ni peut-être maa ko raw yàlla suñu borom baax na maa ngi nuyu ñu ko tëgg waa Rente DKR Alain maa bu baax a grand Pape Sarr xam nga ma leen di nuyu Jumbo ñoom ñëpp maa ngi di char xam nga may nuyu Kalmantour de passage aussi tamit di nuyu mbër yëpp waaw di ñaan Sénégal jàmm yàgg fa aussi. sa diggante yow Kalmantour noo xanaa parce que maa ngi am na ci ñoo xamante ni ku ci mel ni Pape Général am na wax yu mu jotoo wax sànni ko parce que yaa njëkk a wax jox ko mu wax delloo la ba ne la nag sax. na nga waaj sa diggante yow ak moom ndax mbokkam la te bokk na ci ñoo xam te ne dina ko jàppal te yow bu bés baa di nga xam ne ay mbokkam ñëw nañ taxawu Kalmantour. waaw lamb moom xëy na Papis général dafa wax rek mu génn mais tey jii képp koy bëreel ay mbokkam dinañ ko jàppale mu wàcc man samay mbokk dinañ may jàppale Kalba Ndour ay mbokkam ñoo koy jàppale loolu moo ne ci làmb mais Papis général loolu mu wax noonu man frégew ma de non non non non li ko intéressé la wax ci Kalba Ndour Kalba Ndour lay jàppale bon na jàppale Kalba Ndour mais man li ma war ak suma mbokk ak suma ñi ma war a jàppale te yàlla tax moo loolu ñu si. leneen lu ci nekk moom ak lamb ñoo baaxoo ñoo ànd ay làmb ak coow ñoo ànd quoi. waaw wax ji daal yow dugg la. non mais mënu ma dugg loolu mu duggee may ba teg sama ngéem wax boobu wax boobu bu fekkee daf ma daf ma daf ma travail wax boobu bu fekkee daf ma travail non jaratul ñi may topp di ma topp. nit génn na wax da ngay sama combat ak li ma dégg mosuma ko dégg pourquoi Bour Sine da ngay dégg bool bool bu ñu envoyé audio ne diw mënul wax ba duñ ko dóor mu daanu yàlla suñu borom gis nga ko yàlla noppi na bu yàgg su ma ñëwoon Kalmandour daan ma sax bu mu jàpp ne moom la yàlla moo dogal Kalmandour daan ma man dongab Cheikh Rafa la dongab Cheikh Modou Djidi Fall la aw ma lu may tiit lu may ragal li Papis général wax barki Baye Djidi aw ma lu ma ciy ragal loolu frégewu ma sax. maa ngi ko nuyu de pas grand frère la ma ngi koy char mais wax jooju wax dëgg yàlla dugg ma quoi. waaye léegi bu ma ñëwee ci Kalmandour sa combat yow ak Kalmu Ndour comme que nangoo décortiquer moom naa pousse looy bàyyi mu jàll sa combat yaa Kalmu Ndour. ndax sama combat Kalmu Ndour moom wax dëgg yàlla combat la champion la ndaanaan la mais eh, man tamit damay ñaan yàlla yàlla may ma ndam comme que moom jël na lépp moo ma daax bëree moo ma ëpp gàllaaj moo ma def lépp mais comment bëri loolu yow yaa wax loolu wala moom moo wax loolu. Ndour ko wax. dana moo dàq bëree. moo ma ëpp doole. ma dàq xeex fan la teg loolu. am na géwél yoo xam ne am na pël yoo xam ay géwél lañ am na séeréer yoo xam ay géwél lañ te man képp kuy géwél sama mbokk nga waaw bëri ay mbokk. yaa ngi ñaan yàlla yàlla may ma dem deer incha allah bu soobee yàlla. mais ñi ñi mel nii Kalm Ndour ëpp doole. non non man ñëw ma la Kalm Ndour man moo ëpp doole. man maa la laaj loolu yow. ndax yow yaa ma laaj loolu noonu ndax ma la waxal la ba xam Kalm Ndour moo ëpp doole non moom moo ko wax man li ma jàpp. man maa la laaj yow yaa Kalm Ndour ëpp doole. lu ma ci xam fi mu toll nii jàppanteeguñ ma ak moom gaa laaj. moom moo ko wax moom. non waa léegi man gisuma Calme Ndour man yow laa gis dama ne la yow ak Calme Ndour kon moo ëpp gàllaaj. non moom ay non man gisuma fi Calme Ndour yow laa fi gis Eumeu Sène si ñoo laa fi toog. ma d'ailleurs maa ngi nuyu ñi nga xam ne dañ may jàppale te yàlla tax borom daaru xam nga Babacar Oustaz Ale. Calme Ndour daal dégg man Calme Ndour daal Calme Ndour Calme am na ay mbokk fa mu toll maa ngi wax ay waxi dooleeg waxi mystique. nga fi wër nga fi wër ay borom daaru gars yi ni may ñaanal te yàlla tax waa Jilaas ñaaxaar maa leen di nuyu bu baax a baax dañu may ñaanal te yàlla tax biram maa lay siyaar Léo maa lay siyaar xam nga di nuyu gars yi bu baax a baax ñu wax leen ñu xaram tu dafa bëri gàllaaj te xam nga dafa pare pour nagam loo ma yàlla bu loolu antu ama seen union daal fi mu toll nii ay mbokkam lay wër xam naa dañ koo réer nag suñu borom daa dogal xaram wax na lépp nee na moo ma ëpp doole moo ma dàq bëri moo ëpp mbokk du ma wër sama mbokk loo koy wax à travers Wassare Lamb waaw ñaanal ko jàmm di ko ñaanal sama bopp xam nga ba le jour yàlla affaire yi am ak jàmm date bi xam nga ñu ñëw maam moom neexal bëre mu daanu si jàmm dem ñibbiwaat si jàmm prochain combat xam nga mooy loolu. tànk mbër ñu ne huis clos ak làmb ndax su mu yow bokkoon nga ci mbër yi nga xam te jëloon nañ avance avant deuxième vague bi di ñëw est-ce que nga ci bëre huis clos. waaw ñun mbër yi en en tant que mbër ñun amuñu droit wu naan ay d'accord naa ci bëre wu ci huis clos wala d'accord moo ci bër ci huis ñun dañoo jox ñi jox seen xaalis. sans dépense yi ñëw ak sans dépense yi nguur gi ni mu leen di taxawoo bu dee tey benn Gaston Mbengue moo tëgg nguur gi ñëw yëkkati benn xaalis bu takku jox ko huis clos da bu dee benn alee moo tëgg en fait tey jii euh, nguur gi ñëw jox mu comme mu financé benn vingt millions nguur gi jox ko cinq millions kooku bu defee huis clos dafay surux te ñàkk xaalis am na ñoo xam ne dëgg huis clos bi am na ñu mu arrangé mais am na mu arrangé wul te ñun nag ay mbër lañ dañoo lekk xaalisu jàmbur man duma wax. en tant que mbër quoi mooy wax en tant que doomu aadama li nga xamante ni mooy mën a satisfaire ma satisfaire promoteur bi satisfaire amateur lu rafet la quoi lu rafet la en fait ñu waxtaan loolu noonu nekkul ne dañu war a def by force non non non am na ñoo xam bu ñu defee huis clos dañuy daanu seen xaalis génn na ba pare ñëw ñu jox leen benn somme boo xamante ne satisfaire leen fayu sax seen ñetti mbër wala fayu seen ñeenti mbër tamit loolu bu ko boo ko defee yow ku doon yow doo ko ku la ko doon def loolu doo ko def xaarim pare ak seeg de ku la loolu tey doo ko que loolu xam nga nit kuy kuy kuy gis a tool da nga ci xalaat maanaam meññeef bu bu bu bu bu la mën a satisfaire mais mënoo ji sa tool def ci trois cent mille bëgg ci xaar cent mille francs balaa càkkoon nga dem defi leneen ñi ko ñi ko mën daal nañ ko def ñi ko mënul xam nga ñu xaar man loolu mooy sama xalaat quoi wala ñu xool nu nguur gi woyofalee affaire yi tamit xam nga ba ñëpp mën ci tëgg gis seen bopp parce que làmb dafa yaatu ñi ciy tedd dafa bari làmb tey boo nee huis clos dèjà jaaykat ba du ñëw keneen keneen du ñëw ñu dul ñëw bari na te làmb ñu ciy dund dafa bari avance mbër ñu ciy dund bari na promoteur bi li xaalisam ñu ciy dund bari na bon buñ gisee nee rek. tëgg wii bi mooy solution bi rek ñu bëgg ko forcer ñëpp nañ xool ñi nga xamante ni enragé leen ñu def ko ko mënul bu ñu leen jàppale ñu def ko ñu def ko loolu moo gën ko que ñu jékki-jékki rek ne ku mën a tëgg wii nga tëgg wii club ku mënul tëgg nga bàyyi fekk na nit ñi léegi jox nañ en su pare. léegi en tant que mbër su ma ñëwoon ci euh, am na combat yoo xamante jot na fee taxaw te ñu ne woon bokkoon na ci combat yi ni mooy mooy mooy dekkale saison bi parce que saison bi mbër yu bëri yu mag yu ci bëri amuñ combat ñii bëriwuñ euh, su ma ñëwee ci diggante la de Guiers ak Eumeu Sène loo ma wax ci combat boobu. waaw combat la tax li yi di wax naan ñoom ñaar ñamante nañ xam ku ci ne xam nga sa morom di saf waaw mais lamb la joo xamante ni lamb ju doy waar la barki Serigne Bamba man gis naa ni combat boobu daal xam nga nekkul combat bu yombaat. non mënul yomb sax ndax ñu laale deux fois benn bi ñu max ne benn bi kenn ki daan kenn ki ne un un lay ne kenn ki ko deux heures laay def. moom laa lay wax ni mënu mu nekk na ko man gis naa combat bu njëkk ba. bu njëkk ba. incha may bàyyi xel bu baax. yow it bu njëkk ba gis naa ko ci combat bi. maanaam yàgg te neex. wala max niil bi nga ciy wax. non waxuma waxuma si niil waxuma dara la de guerre la ñaanal yàlla may ko ndam ndax moom lañ bokkal ikri ah. moom lañ bokkal géej waaye tout ça Eumeu Sène xam nga ñu ngi koy nuyu de passage la de guerre dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam. lii de kenn mësu ko gis Eumeu Sène junior ah la de guerre la sa digg ak Eumeu dafa am lu ci nekk wala. amuñu benn maata amuñu benn maata làmb affaire ak la affaire ak la. Eumeu Sène amuñu benn. ma ki nga bëgg ba tuddee ko sa bopp ma yaakaar li nga yéene sa bopp moom nga ko yéene. barki Serigne Bamba Eumeu Sène su ma taxawee ne la am nañ problème damay fen te bugguma fen amuñu benn problème mais damaa wax li fi nekk Eumeu Sène amuñu benn problème man ak moom làmb affaire géejawaay man 100 pour cent géejawaay laa bokk. mais bokkoon pour cent Pikine. ma ma ma mais 100 pour du ma ne la bokkoon naa ci. dama nga bokkoon parce nekkoon nga taay si nga nekkoon nga bul faale. xam nga 100 pour dafa garaaw mu ëmb lépp 100 cent mooy lépp man géejawaay laa doon gémboo di dem mais Pikine laa doon entraîné je kon nekk moon 100 pour cent Pikine. maa ngi fay nuyu waa Tachinga di nuyu waa waa Bulfaale de xam nga ak suma may ñit am naa fay ñit nuyu suma waa kër maam yëpp waa ginnaaw raay laa njëkk nekk bi ma ñëwee Dakar man gannaaw ba li ma naan la gannaaw gannaaw gannaaw Diourbel Guédiawaye laa am parce que fi maa ngi am seen amuñu benn problème dama laa wax li nga xamante ni moo nekk am naa droit ñaanal la dëgër yàlla may ko ndam am seen encore une fois amuñu benn problème waaw amuñu benn problème waaw benn problème. léegi bu ma ñëwee ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé looy wax ci combat parce nekk na combat boo xamante ni mu Ama Baldé yàggoon na bëggu combat bi Modou Lo bañu ko woon mais dana ko bàyyil ba yegg si moment bi nag mu yegg na ko ñëwul ñu bëri noo gisee boobu làmb. décortiquer quoi ñu wax ci làmb jooju ñu décortiquer. comme ni nga defee fi mu toll nii dama ñëw ci Eumeu Sène ak Lac de Guiers nga décortiquer. waaw dama dama waaw léegi yaay xool. combat bi Eumeu jot xëy nga far tamit. jot fa non non Eumeu jot faraw kenn. waaw ci dañoo am lu nga xamante ni ci Modou Lo ci côté Modou dafa am benn benn fort bu nga xamante ni dafa utiliser ak ak ak garde norme fausse garde yi moom garde normal la tout le temps da def suñu borom da ko da ko dimbali moom bu ngeen ne tab rek day armé mooy épercute waaw. loolu fooram la daf koy def Ama Baldé dafa am benn faible bu nga xamante ni ci combat ak Modou laa wax de benn faible bu nga xamante ni moom lay def te droite ba dafa yéex mooy ko droite lay dóoree te euh, pied droite lay teg te Modou Lo loolu lay wër waaw. te Ama Baldé dafa bëgg ar bi ne mu ne làmb ji day jeex tey dafa bëgg ar bi ne prip mu ne làmb ji day jeex Modou mbër la bu nga xamante nii li muy def noonu sax lu baax la ci Modou Lo mais na bàyyi xel bu baax baax baax a baax buy songu Modou Lo na kanamam gi na na ko na ko na ko sécuriser na ko na ko na ko confiner na confiner kanamam gi buy songu Modou maanaam daal su ma déggee wax ji maanaam ni Ama Baldé di entamer combat am loolu mooy li arrangé Modou Lo. du ma ne la li arrangé Modou Lo dafa am am ñu nga xamante ni comme Balla Gaye wane na wane na wane na wane na faayam maanaam boo ko ërtalee du fekkagum mu nekk maanaam turbo la. bul bul bul bul dellu gannaaw bul dellu gannaaw waaw. non dellu ma mu dellu gu ma gannaaw parce xaju fi. damay jël ama seen vision ma teg ko ne Serigne Modou Ndiaye laa la wax man lépp lu ma lay wax barki Seera Fall la amul lu ma siy dellu ginnaaw dongam Seera Fall laa. même bu ma rusul nit ñi nii man damaa ruus samay wax si la. li ma lay wax nii amul lu ma si dellu ginnaaw maa ko wax dama ne la Modou Lo turbo la xam lu tax mu nekk turbo mooy ko boo nee prime nii du fa nekk gum mais bu lamb ji tàngee bu lamb ji tàngee dafay naqaree jële Balla keneen du koy ñëw nangu ñu de passage le roi di Guédiawaye Balla Gaye dafay ñëw def li mu bëgg a def balaa mu loo di xalaat mu dem nekk ci leneen ah ba leneen man ma ne mën na ko def mais na bàyyi xel kanamam gi. na bàyyi xel kanamam gi laa la wax moo tax ma ne la ko confité na confité kanamam gi. bu fekkee bu fekkee Ama Baldé naka la war a entamé combat am parce que comme que ngeen ne droite bi lay teg te droite lay dóor dafa xaw a yéex te Modou. waaw droite bi waaw te Modou dafa xaw a gaaw loo koy wax. jërëjëf. gis ngeen de lii de fii rek la am. yaa ko ci dara de mais bu doon café Touba nag ah, day fay de. <laughs> Ama ah, Baldé droite bi dafa yéex te pied lay teg ndaanaan la bërikat la diis na am na doole loolu noonu yëpp suñu borom dogal na am na ko ci combat bi mais na bàyyi xel loolu ci Modou Lo laa wax song bu song na bàyyi kanamam gi xel parce que saa suñu jegante buñ songee dèjà Ama Baldé loxom bi nga xam ne mooy forum pour dóor day éliminé wu Modou Lo loxom bi forum pour dóor day libre voilà loolu laa lay wax. moo tax man la na na na kanam gi maanaam bu ko kenn gis kanam gi bu ko am bu ko Modou gis. non bu songee noonu rek wax sàng kanam gi day libre Modou day simpi xaañ day rotti rek dóor. bu ma ñëwee ci euh, su ma ñëwee ci Gris Bordeaux kii euh, nu ma guy gi ak Reug loo ma ciy wax. waaw d'ailleurs dañuy ñaanal guy gi yàlla suñu borom may ko ndam. ñu koy wax ne xam nga foog mu entraîné lu baax a baax comme ni mu koy defee actuellement dem na Amérique wuti doole ñu ngi koy ñaanal bu baax a wax ni rëg-rëg champion la ndaanaan la waaw dañuy ñaan nga ci defal tuuti analyse. xam nga lu tax ma ma ma sama xel dal ci combat bi mooy guy gi dafa bëgg combat bi te suñu borom may na ko matière boo xam ak ñor bu nga xamante ni bu nekkee ci forme danaan la combat bi ñu lay demee. fii ngee ñuy jaar nañ jàpp ma jàpp ma yow ñi lay deme combat bi force wuñ ko combat bi combat bi combat am la moom moo ko jëlal te dañ koy jàppale bu baax a baax. mais est nekkul daal sës tax mu jël combat bi. sës fan. parce que boo xoolee propose nañ ko ko mu bañ ñu force ko ko mu bañ mu dem à la fin mu doo a nangu. non loolu ah, nit nit ku nekk tey jii comme te ku bëgg sama combat tey jii ñu discuter te jubóowuñ ci kase mais Reug Reug daf daan ñaar ñu nga xamante ni nit mënu ko bañ te ñaar ñooñu ñoo gën a naqaree tëral ci làmb ji champion la bien vrai que guy moo ko raw jël na ko mais lam yi loolu moo fi nekk quoi loolu moo fi nekk nit mënoon ni da ngay xaar ñi nga war a bëreel ñi nga war a bëreel ñeneen dañuy xaar ñeneen ngay xaar ñemale suba doo leen bëgg du ngeen am image amateur duñ bëgg xaarandi bi métti moo fi nekk di amul njëriñ. mën nga ma defal analyse bu gàtt. moo tax ma ne la guy gi xam nga lu tax ma ne la carrément guy gi. Eh, waxuma guy gi de wax guy gi nga may wax yaa guy gi yéen a bokk analyse laa la wax ci diggante guy gi ak Reug Reug nga defal ma analyse. mënu def analyse te du guy gi ndax xam tax mënu def analyse wax guy gi ak rëg ñooy bëre damay ah, wax ay fooru guy gi bëgg na combat bi mais waxal ci rëg lan laa la wax non da ngaa def jikkoy journaliste maanaam maanaam da ngaa def jikkoy journaliste xam nga def jikkoy journaliste. waaw léegi da ngaa far da nga ne ma ma de ko tigel la dèjà. waxal ma waxal la rëg-rëg nga xamante ni ñoo gën a naqaree tëral nga waxee li tax rëg guy gi jël rëg mais nga de ko tigel ma laa bëgg nga waxal. xam nga da nga maa ma yeggali. voilà ñaar nit yi nga xam ne ñoo gën a naqaree tër mu daan leen avec la manière bëre loo leen xam nga kon kooku ak ndaanaanam kenn mënu ko na table mais dama ne la guy gi moo bëggal combat bi boppam te mi ngi comportement bu nga xamante ni bu bëggee lamb ji deme ni daana lamb ñi lay demee te suñu xel mi ngi daal parce que bëgg na combat mi ngi bu buñ jàppantee daal yàlla na yàlla suñu borom dogal ñun luñ bëgg euh, suñu borom dogal ko moo ñuy jàppan seen loxo roofoo ku nekk jàpp ku nekk ngëb dëgër ku nekk jàpp sa gëñam morom ñu yéen Reug Reug incha allah. nañ fan yi euh, seen mbokk mbër moo xamante ni mooy Boy Malika euh, man na deux fii ak deux mois lay am un bi mu amee bi mu defee accident beeg léegi ñu doo ko bal ci dënn bal bi nekk. war koo faj ci mbër euh, keroog mobile tout récemment dégg nañ ko kàddu yu rafet yi mu wax ñoo ngi koy rafetlu moo soq nee na ku ci defoon mille mille chaque chaque mois sax. buñ ko doon def ku ci feebar dina la faj te xaalis dina des en tant que mbër loolu lan ban appel ngay lancé ak lan ngay wax sa mbokk mbër ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi mun koo jàppale. waaw DR dañ koy dañ koy nuyu di ko siyaar xam nga di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di ko ñaanal njabootam yëpp yëpp yëpp di wax bon volonté ñu jàppale ko te yàlla rek tax parce doomu aadama la nit la am na famille xam nga am na ñu yaakaar ci moom da nekk ci liggéeyam il paraît ba loolu arrivé ko ci xam nga dañuy ñaan nit ñi ñu jàpp ci bu baax a baax li soq wax euh, mobile wax ko lu wér la tamit mais nañ fexe suñu xool yi ba pare comme ñaari association bañ fi am ñun ñëpp ñu nekk benn nit bu ko defee loolu lépp dina yemb incha allah mais ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom taxaw gars yi taxawu ko xam nga ñu faj ko ci barki Serafal affaire yi dañ ko waa ci moom incha allah. soo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. waaw damay nuyu sama jabar di nuyu sama jabar di nuyu sama njaboot yëpp yëpp yëpp yëpp di leen nuyu aussi di leen masaw di nuyu ñu ma fi fekk ma leen di siyaar bu baax a baax a baax di nuyu sama mbokk géwél yëpp yëpp yëpp bàyyuma kenn may nuyu sama jigéen sama xarit soxna May Fall di nuyu Serigne Sidi Diop borom këram soxna Karima Mbacke maa ngi koy siyaar aussi di nuyu waa Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyuma kenn di nuyu aussi Xarim Anta Seck waaw ah, ndax moom sama gain la quoi moom borom baax la gainu ñëpp la sax quoi gainu ñëpp la mais gis naa ne ñaar sànq ngeen daw jargandalu de nu mu mën. non bëri ngeen lu doy waar da nga. <laughs> gis ngeen ni ma ko noonu def. daaw na la nga bale ko ca suuf non bu ko néewoon loolu busul ba ñëw jaana tàkk. <laughs> gis ngeen ni lay demee ci wasaare làmb Eumeu Sène Junior lañ euh, ni ma leen koy waxee chaque jour làmb amul dara amul waaye ñii ñi nga xamante ne ñooñu seetaan dénkuñu seen bopp mënuñoo toog croiser les bras ba tax na fépp fu mbër nekk fépp foo xamante ni làmb dafay nekk rek dañuy dem seeti leen ay mbëri xool leen nu ñuy toogee gannaaw làmb amul ku fi fi nekk ni lañ koy defee maa ngi nuyu sama cameraman bu baax baax di ko nuyu moom Eumeu Sène Junior di nuyu Khadim Seck di ñëpp ñu fi teew di leen jox dig daje ba beneen incha allah.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 yoonu yàlla ak yàlla bi ñu ko liggéeyee